salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu fas yéene dikkee ci naafila tey gi muy guddi fukkeel ga ak benn ku ca julli ñeenti rakka ñaari sëlmal rakk bu ci nekk faatiha benn yoon inna ansalnahu ba saar wa jeex juróom-ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruun ba saar wa jeex juróom-ñaari yoon qul huwa allahu ahad ba saar wa jeex juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki yoon des na ko jéggal bàkkaar bi njëkk ak yu mujj te laaj ju ci nekk des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla am at te dana mel nit ku goreel junniy jaam saraxe junniy dërëm reggal junniy ñu xiif wordu junniy ñu rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf moo xam lu wow la wala dana ko jéggalul yàlla te des na ko musal ci balaa yi ak fitna ak xiif ak ràgg ak saddum jinne te des nag musal ci méttitu dee te dana tàbbi àjjana te deesu ko xisaab kon loolu nekk bokk guddi tey gi mu guddi fukkeel ak benn ku ca julli ñeenti rakka ñaari seen man rakk bu ci nekk fatiha benn yoon inna ansalna ba saar wa jeex juróom-ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruun ba saar wa juróom-ñaari yoon qul huwallahu ahad ba saar juróom-ñaari yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah